maa ngi tudd eh, Ibrahima Ama Diémé eh, ma nekkoon professeur d'histoire géographie léegi dama jël naa sama retraite mais bàyyiwu ma may gëstu toujours may continuer di gëstu te ma bokk ci eh, collectifu cadre Casamance donc sama teewaayu Fatick sama te région Fatick donc ci biir Foundiougne prétexte bi moo di festival du cousinage du cousinage à plaisanterie nga xamante ne joola séeréer lébu ak euh, alpulaar ñoo ko bokk te initiateurs yi ne dañu gis ne euh, ñeenti xaaso yooyu ñeenti communauté yooyu dafa am lu ñu bokk euh, te loolu la ñu bëgg a wane d'abord waxtaan ci kenn ku nekk dëggal loolu ba pare nag ñu daal di nan lañ fa mun a am comme intérêt pour euh, suñu réew Sénégal donc euh, ma bokkoon ci ñu waroon a def exposé yi euh, ñun yi nan la ñu gisee cousinage boobu nan lañu ko yégee ku ko jàngal et puis ban intérêt lañ ci gis ban intérêt lañ ci gis donc loolu defe naa ne lu am solo la ñu teew fii depuis ajuma Euh, tey dimanche euh, bu soobee yàlla euh, suñu séjour dina jeex fi waaye xol bi des. initiative bi defe naa lu ñu rafetlu la. de looloo tax ñu bay suñu lépp ñëw mais ma bëggoon a fàttali rek personnellement man ak Fatick en tant que région man ak Foundiougne en tant que dëkk am nañu histoire quand même boo xam ne. lu jara fàttaliku la premièrement Fatick bu ñu koy créer région euh, deuxième gouverneur bi ñëw fatik mooy le gouverneur Saliou Sambou te defe naa ne yéen waa presse yi war leen koo fàtte ndax Saliou Sambou muy ñëw Fatick ci la toog mu xalaat ne il fok faut euh, mu am lu ñumu mu jàngal nit ñi ci xam-xam bu mu amoon mu jëlee ko ci benn conte benn légende mu doon raconter tous les petits Joola en Casamance mais an Joola euh, mu ne ci conte boobu am na ñaari jigéen ñoo xamante ne kii mu ngi tudd Ageen kii tudd Jambon Ageen ak Jambon pour moom nu mu ko tëggee ñaari seex lañu donc bokk ndey bokk baay bu ñu demee ba nekk ay jànkamaar yooyu ñu demoon un jour di taxani wuti mat loolu lañ koy waxee taxan ñu jël seen gaal kii nekk ci ginnaaw parce que gaal bu ngeen fa nekkee ñaari foog mu am kenn ki ci ginnaaw kenn ku euh, ci kanam ñiy dem woy seeni woy kontaan et cetera malheureusement gaal gi euh, dàmm ci euh, digg bi donc kii nekk ci ginnaaw ndox mi yóbbu ko ki nekk ci kanam itam ci kanam itam ndox mi yóbbu te pour moom histoire bi mu ngi amee fii ci diwaanu euh, Logan dem xaw ma noonu ngeen koy wax ah donc euh, est-ce que Foundiougne la est-ce que Fatick la est-ce que euh, Sangomar la mais en tout cas ci zone bi la ñaari seex yi dem kenn xamul fi ñu ne ñu dem ba nekk mag nag kenn ku nekk nekk fi nga ne Euh, fàttali ne am ga ki nga àndaloon nga nekk di ko wër wër wër ba ñu daje moo tax it moom mu tuddee ko Saliou Samb mu tuddee ko le festival des origines 93 décembre 93 janvier 94 ci la festival bi am noon première édition après ñu defaat ko Ziguinchor at bu ci topp ensuite ñu ñëw euh, Joal Fadiouth euh, pour la troisième édition donc je crois que loolu moo indi ñu bëri fàttale ko ne ak yéen ak ay mbokk lañu woon te euh, réeroo nañu ba retrouver waat ci boobu euh, resi Saliou fàttali nit ñi ne que ak yéen ak jàmm woon amoon nañu itam ñaari rakk yu jigéen kii tuddoon maan kii tuddoon debo debo en alpulaar donc debo c'est la mère de alpulaar maan nekkoon yaayu debuy donc tu vois déjà boo jëlee Sénégal alpulaar yi joola séeréer ak lébu ñoom ñoo pratiquement couvrir tout le territoire national parce que joolaa yi ñu ngi ci sud ñoom ak alpulaar yi euh, alpulaar yi ñu ngi ci nord séeréer yi nekk centre lébu yi nekk depuis Saint-Louis ba Cap na léegi ñeneen ñi te euh, ànd ak ñoom ñu constituer la nation sénégalaise donc lii lii mooy loo xamante ne ku nekk war nga ko retenir euh, parce que une nation elle se construit ça c'est la légende maintenant euh, Foundiougne pourquoi mu ma am relation également ak Foundiougne donc pour Saliou sambu Fatick lii la ko pour Foundiougne maanaam bu Casamance amee problème yi ñu dem ba nekk di ko jéem a résoudre ñu waxtaan ak nit ñi waxtaan waxtaan waxtaan ba 2004 mu am les assises de Ziguinchor mu am les accords entre le gouvernement du Sénégal de l'époque 2004 ak le secrétaire général de du MFDC Abbé Diamecoune Senghor ak ñi mu àndal ñun ñëpp ñu teewee ko Ziguinchor euh, après ça ñu de ah comme am na lu des pour que mu nekk vraiment accord définitif inviolable et tout ñu convoqué les assises de Foundiougne boobu séeréer yi ñoo jël initiative pour convoquer les assises de Foundiougne boobu jamono maa ngi fàttaliku ne le président Macky Sall moo nekkoon premier ministre donc vous voyez pas de hasard ñu ñëw Foundiougne itam ñu def réunion bi fii Euh, ñu waxtaan ñu ne vraiment li amoon amoon na waaye ñu fexe ñun ñëpp pour que mu bañ a amati ñëpp teew nation bi yëpp teew alpulaar yi teewoon nañu euh, lébu yi teewoon joolaa yi ñëw séeréer yi euh, accueillir leen fii ci Foundiougne waxtaan bi am je crois que moo tey mooy bi ma ñëwee pour lii ma ne il que ma ñëw parce que nekkoon naa fi ci yooyu assise te ma ñëw cette fois-ci pour le festival voilà li ma lié Foundiougne sans compter maintenant qu'il y a une très communauté Diola ici donc bu ñu xalaatee ne dañu war a organiser euh, festival bi ñu daal di ma woo ne ma fexeel vraiment soo mënee bàyyi lépp li ngay def fexeel nga ñëw euh, nga bokk ci ñu war a xalaat ñu war a tabax itam euh, li war a dëgëral diggante séeréer Joola ak alpulaar ak lébu léegi ñeenti groupe yooyu boo ci dem bu dee séeréer yi da ngay dégg ñu naan maasir maasir mooy cousinage te cousinage plaisant cest à wax nit ki loola neex te moom du mer te yow doo mer euh, alpulaar yi ne dendi raagal je crois dendi raagal te itam bu la alpulaar ne dendi raagal ça suppose que euh, yow waruloo waruloo mere ki la wax dégg euh, soose yi sanankuya sanawiya itam waroo mere ki la wax dëgg joolaay ne batiyaay euh, bagelor euh, ils ajoutent aussi pour certains qui sont mandinguisés ils ajoutent sanawiya donc li am la te loolu je crois que loolu mooy ñuy jox chance bu ñu am bi tax àddina bi yëpp nee na ah joolaay ah, plutôt Sénégal lu mu am amul benn réew ko am parce que dinañu dugg ci difficulté yi ne waaye dernière limite dañuy saisiru ñu bay lépp am ne ñun ñëpp benn lañu te kenn mënuñu xajale je crois que loolu mooy intérêt wu euh, initiative bu mel nii. oui defe naa euh, déjà démb ci ouverture bi gisoon nañu euh, cérémonie bi tellu nii prestation joolaa ak seen kumpo seen agomala seen saama et tout et puis j'ai vu que les Sérères avaient bien aimé gis aussi prestation lébu yi prestation séeréer yi c'était très très bien defe naa ne loolu lu baax la maintenant présence su ñuy jógee Casamance c'est tout à fait normal parce que normalement su dee nit ki sa mbokk la bu xew xewlee boo ko yëgee war ngaa ñëw asamaan nag bu la invité donc defe naa ne loolu lu war a mën a rafet la lu war a mën a rafetlu léegi li des mooy ñëw naa teew na warul yem foofu ñëw naa teew na war dox te war wax li euh, li ma yóbbu am njëriñ askan wi parce que nit ñi souvent dañuy do ndax fête bi après fête bi ñu fàtte heureusement que yéen a ngi fi de temps en temps mën ngeen fàttali nit ñi ne que li amoon na ñun teewoon nañu te li ñu fa waxoon waxuñu leneen lu dul luy defar Sénégal leneen luy tabax Sénégal te loolu mooy kenn ku nekk nga teg sa morom ne comme yow defe naa ne loolu itam euh, lébu yi ñëw nañu. mais surtout lima ma li ma euh, gën a euh, rafetlu itam ñëw naa fi daje naa ak samay xarit nga xamante ne ñun ñëpp ñoo bokk jàng li ñuy jàng mooy histoire ak géographie euh, depuis trois jours ñu ngi waxtaan ci loolu et puis ma gis ne l'actuel Mata Sine le roi mais c'est un collègue très ouvert et puis xam fu muy jëm la ñëwoon na malgré toutes les difficultés toog na fi ba presque vingt et une heures mu soog a dem Euh, mu ànd ak ay ay conseillers am parmi lesquels euh, maa ngi koy nuyoo c'est euh, Gelaajo Touré mu nekkoon sama xarit mi muy nekk Bignona yàgg na Bignona donc ñu xam réew mi la donc bu ñu ñëwee ne lii moo leen yëkkati kenn ku nekk war nga ciy def sa ful fayda pour que loolu doon lu amal njëriñ réew